société wane séquence bu bon bi tasaaroo ci ko tuddu Lena gay Lena <laughs> Gay bala ma ci wax limay wax dama bëgg rek ñu tegal nu dém bi faal yàlla na ko yàlla jéggal ko nanu ko Omar tégal dém bi eh, say nopp mo la lu la yem ci 15 minutes fay nañ ma 45 millions ma gogo ben boîte la bu nek yang-yang lañ la doon joué lo pardon hmm? ma saaga seen ndey tey bi samay doom ngi di gàddu di dox quarante cinq millions jar na ko samay doom yi tey maa di xool di gis leen suñ papa ne ngi ni la meloon non non samay doom zéro faute amul luñ ma mën a waxal ya, tey faatuma yàlla na ko yàlla yërëm ko xaare ko aljana comédien la woon théâtre kat la woon théâtre na comédie na ña ko bëgg doon ko seetaan seetaan nañ ko ci waaye gis nga lii mu gàntal nii bu ko nangu woon tey moom dong moo koy régler biir bàmmeel biir bàmmeelam ak sunu borom moo koy régler ëllëg yowmal xiyaam ak sunu borom mooy lan kaay ñu joué loola film porno quinze minutes fay la quarante cinq millions mu ne ca yang-yang benn boîte de nuit bu fa ne mu ne loolu bu ko joué woon tey lan lay wax ay njaboot léegi kii proposé nañ ko quarante cinq millions pour bëgg ko joueloo benn film mu bañ te quarante cinq millions am na lu mu ko mënoon a jëriñ ndax soxla na ko waaye kersaam jomam jombu jombam mbañum rusam diineem yiwam mayu ko muy jouer film bu bon boobu dem bi ana mu faatu na nañu déglu leen ak yi. rôle rek la xam ngeen man sama jëm bopp melu ma noonu dañ ma koo jox rek. Mhm. Mm-hmm. léegi leena nee na moom loolu rôle la rek buñ ko joué mu joué ko rôle la rek buñ ko joué mu joué léegi de ngeen kee de kee xam nga rôle lañ ko doon joué loo rôlu pornographie kii moom ñu joué loo ko rôlu moromu jigéenam yu bari buñ leen ko joué ñu ne non ndax dañoo suuraale ëllëg dañoo war a ami njaboot lan lañuy wax sunu doom ëllëg mu gis seen yaay juy wane njiit laayam ñu filmer ko ñoo ñu jomb ko moom nangu na ko ndax nee na rôle la rek waaw léegi su fekkee bu ñu la joué loo rek nga joué ko léegi imagine leen leena mii nekkoon place démb ma démb bi male ndax rôle rol la rek démb bi rôle lañ ko doon joué ci joué loo ci ci film pornographie mu lànk quarante cinq millions mu gedd ko léegi kii buñ la joué loo rôle nga ne yow meloo noonu nee ngaay meloo noonu nee ngaay xamunu ndax la nga mel moom yow ak ña la xam ak ña nga dëkkal ñoom ñoo ko xam mais li ñu mën a xam gis ko mooy ku wow bët ku ñàkk kersa ku ñàkk jom ku asaru la ñu gis muy jouer ay rôle yoo xam ne rôle ku asaru la loolu moom mooy li ñu xam après nag yaa xam yow ak ña la xam ak fa nga dëkk lan ngay dund meluma noonu moom loolu wax ko ñeneen mais li nga mel nga xam ne nii yow Ibou Guèye mi lay jouer loolu mel noonu am na doom ju jigéen Ibou Guèye waxoon naa ko ko ba mu doon génn xaw ma def vidéo di ma ci tontuwaale nee na xaw maay mooy ki mooy ki bind infidèle bi nii am na doom ju jigéen lu tax doom ju jigéenam dugalul ko ci dugalu ko ci biir role bi di ko di ko nu mu tuddati di ko jouéloo doom ju jigéenam est-ce que dana ko jël jouéloo ko rôle leena bi am na soxna moom Ibou Guèye est-ce que dana jël soxna am di ko jouéloo jouéloo rôle leena bi léegi daal yow sa njaboot jël nga leen nëbbu kenn gisu leen léegi njabootu jàmbur gi nga xam ne moom ñemee nañoo affiché wu ngeen leen kaay leen léegi man damay yeete waxoon na ko bi saison bu njëkk ba biñ ko coowee moo wax ci li may wax muy génn def vidéo boobu di tappale di lay ay layam génn ne waaw non euh, sénégalais yi dañuy àtte loo xam ne xamuñ ko fi finalité bi moo am solo ñun dañuy jàngale léeg nag yenn jàngale yi il faut nga heurter sensibilité yi su ko defee loolu France ba ñu bëggee dindi xaw ma ban réew ba ñu bëggee dindi accident yi dañoo def ay séquence film ci tele yi muy jàll ñu wane accident wane waale deret ji loolu lañ sensibiliser nit ñi pour accident yi mën a wàññeeku maanaam daal moom pour mu sensibiliser sénégalais yi faaw mu jël ay jigéen ñuy jël ay musuwaat di wane ne dañoo gis mbaax pour mu sensibiliser sénégalais yi faaw mu jël ay jigéen yoo xam ne ni dañuy jël futti seen wane ñuy futti seen yaram wane seen njiitlaayu jigéen ñu koy ñu koy simmi loolu daal la ñuy sensibiliser sénégalais yi ah, def loo ko sa soxna waaw léegi li nga xam ne nii xool nga yow ba nga xam ne sa soxna bu ñëwoon sa bëgg ko nga ne ko non sa doom bu ne la woon papa dama bëgg bokk ci série bi rôle bi jox ma nga joué ko nga ne ko du ko nangu doomam bu bëggoon a bokk ci série bi ne ko bi indi ma joué ko mu bañ day bañ donte ne doom ji moom moo ko bëgg ak lay bu mën a lay di tàppale mën nga mën na dégg lii ma wax ko mu xëy ne non sama doom bu ko bëggoon ma def loo ko. mais légui li nga xamné ni sa dom bu ko bëggoon do ko ko def lo ci sa conscience bu tranquille bu waxuma conscience bo xamné après da ngay fi do ko ko def lo légui pourquoi nga koy nango def loo doomu jàmbur waaye doomu jamm ri tamen ci menen côté genre léne gi ñoo wara xam seen bop xamné ëlëk yene doon yaay yene doon mam aduna saxul dem bi la ngi ni yalla na ko yàlla yërëm dugg na ci bir bàmmeel tay bu joué won li ñu xëy ñu fay ko 45 millions 45 millions yi lekk ko mu res mu jural koy tolof tolof àdduna tey mu dugg ci bàmmil ëllëg war ko layoog yàlla lu mu koy jural yiñ leen di fay ci li ngeen di joué jaru ko siiw gi ngeen ci jëlee jaru ko nekk star gi ngeen di yootu pour doon ko ba ngeen bokkee ci série yi jaru ko xam nañ li xew waxoon naa ko xam nañ lu bari li xew ñu ci bari ñu bokk ci série yi defuñu lu dul jaay seen bopp kese jaay seen bopp nag waxuma jaay seen bopp comme kay kay di jaay bopp mais maanaam jaay seen bopp boo ci bokkee après star ngay doon boo xam ne góor ñëpp ci àdduna bi dañ lay wër kenn desul le fait que feeñ nga ci benn série rek nekk nga ci benn star après ci série ba boo ca jógee góor ñëpp a lay wër ci àdduna bi loolu laa tuddee jaay sa bopp gi léegi war na la jaral jaral rôle buñ la joué lewu nga joué ko bu ñu la yorloo cigarette nga yor ko buñ la tëddloo ci kaw góor nga tëdd bu bu ñu la waxee góor na tëdd sa kaw nga tëdd buñ la waxee simil sa njir laaj ngeen baal nu ci waxin wi nga nang ko simi ndax lan rôle bi moko laaj rôle la rek buñ ma jouer lo ma jouer ko ndax luñ la joué loolu nek nga jouer ko ana bañu bañu murus ana jombu jombu naa ko jomb ko anamu léegi après da ngeen koy jouer léegi dal sénégalais non day jur ciow rek après buñ ko ciowé mu jeex <laughs> ku yaakaar ni yeen ni dañ koy ciow rek mu jeex ciow li dana jeex ñu ko ñu noppi waye ciow li dalay top ba nga dugg am na yoo xam ne poson la bu la nit ñi cooyee ba bàyyi la sa yaram mi lay des day doon poson jural la musiba nga xam ne da nga koy dund ci yow kese doo amati jàmm ci sa dund yow sa dund doo amati jàmm ba ba ngay dugg biir bàmmeel ko yaakaar ne yenn yi da nga koy def rek ñu coow ko après mu jeex yaa ngi nax sa bopp xaalis boo ci gañee xaalis bi musiba lay doon ci yow da nga koy lekk doo ci am lu la neex xëy xaalis bi mel ne safara su tàkk ci sa lox loolu lu ko fi jaar bàyyi leen xel ngir yàlla réew mi ngeen nekk ruus leen ñi tëdd ci suuf si suuf si ngeen di dox ci kawam ñu tedd tëdd ci biir suuf si ay gor ay garmi ñoo tëdd ci biir suuf si bu dul dara ngeen ruus sax bu ngeen ruusatul ñiy dox ci kaw suuf sax xanaa ngeen war a ruus ñu tëdd ci biir suuf si senegal ngeen nekk Sénégal Sénégal senegal du Europe senegal du États-Unis senegal du réew mi ay nawle ñoo fi nekk da nga jomb yenn yi sax def ko sa nawle di ko yëg waaye da ngay poser question ne ñii ndax am nañuy mbokk ndax amati na ñuy mbokk fan la ñu jógee fan lañ leen jëlee ku ñemee jouer théâtre yi ku mel ne ñemee jouer rôle yi da ngay poser wu question yooyu tax na ragal leen yàlla bàyyi xel seen borom dee day dikk de day dikk de doon na baax rek ñu jël leen yóbbu leen ba armeel ya trois heures du matin ñu dugal leen ci biir armeel benn trente minutes ak génnewaat leen doon na baax ngeen ngir ngeen dellu ci tuuti seen mémoire yi defaruwaat waaw seen mémoire yi defaruwaat ngeen xam ne yàgg-yàgg foofu rek ngeen jëm ku doon dundu dund goo xam ne day sax sax xanaa mu xaw ko jar ndem dund gi day sax waaye léegi ku dund juróom-ñaar fukki at loo mënoon tële nga ko ndem da nga fa yegg lu la doon saf safatu la lu la doon neex neexatu la gisatoo fi xolal théâtre kat yi fi nekkoon démb siwon tey ñu ci bari ku ci defuloon njombe yaa ngi génn ak fierté sénégalais yi naaw la ndax mosoo joué rôle yu bon mais ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon joué ay rôle yu bon rôle yu ñaaw doon foyee diine ana ñu tey ñu ci bari ñu ngi tëdd feebar ñu leen di yalwaanal sénégalais yu ci bari jéppi nañ leen di leen xool rôle yu bon yooyu ñu joué woon loolu yéen du ngeen ci jàngee dara du ngeen ci jàngee dara daal waaye daal sama fu faalewuma kenn nangam yooyu ngeen nar a doxee rek ba xëy dugg ci biir kàmb bàyyi leen xel yi ngeen di def yéen ñi bind seri ragal leen yàlla yéen ñi ci nekk di jouer ragal leen yàlla siiw jaru ko waaye daal nañ ko def buñ paree jamra coow ko ànd sàmm ji koy coow ko après mu jeex loolu ba kañ ba daana ñu ngi encouragé jamra ak kuréel yi nga xam ne yëpp ñoo jug porté leen plainte ñu ngi leen ci appuyer bu baax a baax nañ ci dem ba musaf saf am na loo xam ne tamit nag wax dëgg dëkk bi yoon yi rek ñu yoon rek ñu ci mën a dimbali ndax ñu mel ne nun yàlla mën nañoo suturaal ñu raw ci leen waaye nag dañoo ami njaboot te njaboot gi wax dëgg fa yàlla ñi ngi concentré wu ci internet bi ñi ngi ci télé yi li ñu gis dañuy jàpp ne lu baax la li ñuy seetaan loolu la ñuy jàpp ne mooy réalité moom la ñuy dund ñenn ñi ñi ngi am ay doom yu jigéen yu toll ci yenn âge yi ñi ngi tiit xamuñu fu ñu jëm yéen ngeen waroon a dimbale waajur yi ci jàppale leen ci seen njaboot googu ñu tiit pour jaare jaare ci série yi mën leen ci éduquer mën leen a yar mais jàngalewu leen tous lu dul ak njaalo di promouvoir njaalo suba ngoon série boo jàng jàppal seetaan ñee ngay bëgg a fóonante ñee nga tëdd ca kaw ba ñee ngay wane ye jigéen di bégalee jëkkëram ca biir néegam ñee nga ca salle de bain sangu yooyu noonu le lu fa caméra wuti lu fa caméra wuti bu defee association jigéen yooyu échappé na leen féministes yi yooyu échappé na leen jàpp nañ ne sax yooyu waruñ koo kaas les féministes la te féministes Sénégal yëpp waroon nañoo jóg porte plainte euh, série infidèle bi ak yu ni mel ndax seen honneur la laal jigéen lim gën a fort li gën a fort ci moom gën a suturlu lañ génne affiché ko wane ko ci biti ngeen war a taxaw ne en tant que ay femme loolu dañoo war a taxaw mu dakk mais du ngeen ko def balaa ngeen a coow rek mooy jigéen xañ nañ ko droit am jëkkër ja ca biir sëy ba jàppante nañ pes na ko yooyu rek moo leen di tax a jug ba tax na yooyu rek warul doon seen combat yu mel ni dafa war a nekk seen komba ngeen taxaw ne lépp loo xam ne dafay euh, désacraliser jigéen loolu dañ koy xeex mais du ngeen ko def yooyu it war ngeen ci bàyyi xel ba tax na mbokk yi loolu moo doon ñamale gi yàlla nañu yàlla musal ci bëggub dërëm waaw bëgg dërëm ak kiiw siiw siiw am na siiw yoo xam ne dalay sewloo sewloo am na siiw yoo xam ne dafa laa sewloo waaw ba tax na daal sénégalais yi ko bëgg ñoo koy seetaan nangam ak nangam yooyu yëpp ay tappale la rek sénégalais yi su fekkee ay vie kese ngay sukkandiku pour lu baax ak lu bon tey soo tegoon sama émission aaxiru zaman fii dem jël beneen euh, video teg ko boo xam ne vidéo pornographie la ñu baal ma ci wax ji bële mën na ëpp junni yoon wii sama bos mais est-ce que foofu la ñuy àttee ne vie yu bari yi rek mooy wane ne bële moo baax man bii ma def nii baaxul mais bu leen jaamu vie ñu ci bari léegi jaamu vie lañu vie yu bari waaw sénégalais yi lii la ñu bëgg ñu ci bari dañ kumpaale ne dugal ci yenn yi ak xool yenn yi bëgg dañ kumpa yenn yi moo leen ciy dugal mais du sénégalais yi dañoo bëgg lu bon loolu du dëgg sénégalais yi ñu ci bari lu baax la nu bëgg yàgg naa leen ko wax lu baax la nu bëgg dañoo bëgg lu baax nag teyal koo wut ba léeg-léeg loo leen tegal rek ñu jël consommer waaye balaa ngaa xam ne lu baax lañ bëgg nga tegal leen lu baax bañ xam ne lii lu baax la dañ ciy sax téye ko ci seen téeméeri loxo lañ koy téye waaw ba tax na kon nañ ñu dimbale waaw nañ ñu dimbale